قدر الخير وجعلي طلاوة الدارين وفيما جاب بجارين وجعلي هلاوة الدارين وفيما جاب بجارين mbokki lislaam yi mbokki taalib yi sëriñ bi nee na ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha li ñaan sunu borom mu gën ko fee yàggal doole ko bu wér ba waar nga xam ne ñu ngi koy bay waar wu àgg mu sëmb yeneen ñu àgg ñu ànd ko moom di jaay jaay sëriñ bu loolu dee ñu ànd ak yéen di fàttaliku yàlla bu yàlla sunu borom mi ngi bind binduñu ci koor dañu def loolu ci mu ngi illa illa yoo xam ne ci ko delloo ci moom dañ ñoo daf ñoo bind ngir ñu di ko jaamu ginnaaw bu nu ko te ragal ko te topp ko te doyloo ko jaamu gi nag ko war a jaamu ci suñu moom dañuy wax li nga xam ne moom la alquran andi sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ak sunu ak yi farata yi ak sunna yi dellu ko jaamu nag ci sunu diggante ñun jaamu waaye ndax yamale ko ci farata yi rek gàtt na mën naa yaatu lool nañ ko yaatal nag mooy suñu mbokk yi jaam yi rek doy doon te ñoom bëggante ñoom. tey dimbalante ñoom ngir yàlla ngir yàlla loolu rek la sëñ bi waxtaan yi boobu yi nga xam ne suñu borom andi na leen ñu ñu bàyyi seen képp ñu dikk ànd ak ñun ñu ñu ñu leen gërëm bu baax di leen sant bu baax a baax jàmmal nañ ñu yaatal nañ ñu di ñaan suñu borom mu dolli jàmm. ci jàmm ji gën a ba lépp loo xam ne nii lu loolu lu yëngu la borom giimal ko li tàkkoon ba noppi borom fay ko te sotti ñu jàmm ak xéewal hmm? ñu fa doole fàtte bu suñ bopp bëggante te doylante te jëmin na ci njaboot ndax njaboot gi ay ndaw seen bakkan rek lañu ñu xam fokk ay ay mag nekk seen kanam yi leen jubbante te foofa nag fañ koy tàmbalee mooy gëm gëmalagul dara ñu toll ko tàmbali jubbante di wax muy dégg di jëf muy gis bu màggee dana noppal lool ñu ñu ñaan yàlla su borom mu dolli xéew ni dolli mën a ñu tàll sëriñ ñaan Gracias.